لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي بسم الله الرحمن الرحيم سد لساني نور جناني سف الأماني وفي البرايس نصف دير لقط مير والتكفي جوري من جرايس أنقذ إيالي من الضلال وبالألال خلي السرايس إنه تاب وقل الكتاب وقل متاب يا سرايس yaa xayra rabbi xayra mu rabbi taayib taxal bi baada tijaay salli wa sallim ala mutamim qul yasin bi leen taay allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci seen i taxawaay ak seen positif ak seen bëgg lu ñutu lu baax ak seet lislaam ak di liggéeyal sëñ ci seen i eh, jëfandikukaay loolu nag noonu leen ci sant istiqaama kon fekk na sëñ bi def ab istiqaama xinil malaam ab kiraam bislaay kon nag nañ jàpp ci loolu indi tabaski nag li ko waral moom dama leen ne nga tàmbalee ci day wane taalibi bu ngëm ndigalal sëriñam ak doom ci nangu ndigalal baayam ak soxna su ngëm ndigalal borom këram ndax ci Ismaayila la ak Ibra Ibrahima la ak Ismaayila ak Haajara maam sunu Ibrahima ba mu nekk ak sunu boom ba mu tudd Xalilullaay Iblis da koo xamal daa ba Ismaayil yi judd da koo xamal ne sa xarit ba de sa néew ba keneen sanc ne ci xam nga xol la ñu kii ilaa manaa taala bi xalbin lagi nak sun borom ne ko foo defee ne fa la fa la kooka dëkk mu ne ko xolam ba doomam ja ko mu mag gonal maag ja mu ne ja la ko gënal mu ne la ko ma danaa la masa dangaa masa am bis ma won la ko ba ak géntee sun borom ne ko na ray doomam ji mu dar géntaat ko da wo ismaïl wax ko ko fil ma tom ifal maatam ru min insha allah mina defal li la yalla sant da nga ma fekk ma bokk ca woy muñe ya. mu wax ko ndayam ndayam ne ko defal Ibrahima bëgg koo def Iblis ñëwaat bëgg a yàq loolee ndax la mu ko newoon maa ko gënal doomam ji Iblis ñëw ni Ibrahima yàlla mi nga mi nga naan mi naan xalilulaay bu doon sa xarit doo rey la doom ji amul soxna yorut doom bëgg laa rey ji moo moo ko ci dugal Ibrahima dóor ko juróom-ñaari doj mu dem na aajara Ibrahima yor na la yor keneen sa doom ji dem ba ko gis bëgg mu bëgg la koo rey loo te boo ko rey yow saatlu nga defe woon ne doo am doom dalaa bëgg a lor kookaat dóor ko juróom-ñaari doj mu ñëw ne Ismaïla sa baay ak sa ndey ji dund nañ seen jamono bam jeex dem nañ ba magat yow nga tollu ci ko la gis bëgg la ñu bëgg la rend ci gént képp kookaat dóor ko juroom ñaar doj moy ñi aji makka jamratul ula ak jamratul wasa ak jamratul aqaba ya ñuy dóor ko ku ci fu ci ne da nga fa dóor juroom ñaar doj ñi xam nga dañ nan ci tangki. iblis lay dal waaw nak bam ko tambalé bëgg def Ismaïla da ko takal ba di la na paaka bi ñoom ma bañ sel takal tanki mbumeet na nga ko summi ndax bu ca der ji taqee bu ko ndeyam gisatee xelam day dellu ci moom ba maam sunu Ibrahima jëlee paaka ba bay def ndigal la ba mu dawalee paaka ba kii mu defoon daa ñëwut bi mu ko daasaatee kii weñ ngam ca les daa daa mu tawaat ak paaka ba nag ba mu ko jubee nag sunu borom ne Jibril nag bu bu fekkee mu rendi ko kuréelu malaaka yi nga jiite woon danaa la ca génne Jibril bi muy rëdd monde bi ca Kaaba ak Màkka la taxaw menum laafam la rëddee léegi nag juróom-ñaar fukki junni yi daal yamaam yëpp la wàccee bi muy ñëw waaw <coughs> bi mu ñëwee nag rocci rocci Ismaïla ron fam xar mu rendi ba der ji tooy tànk mu ne alhamdulilahi rabbil alamin Ismaïla ne alhamdulilahi rabbil fañ takk ba di ndeyam ne alhamdulilahi rabbil alamin Jibril ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax Ibrahima ne daa yow mu dem xar mu ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw yàlla def naa ndigal li te doomam diw te yàlla ci boppam moo fi ko wóotal Ismaïla ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw diggante yàlla ak yonent bi yokkuwul ci man Ajara ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw diggante yàlla ak yonent bi yokkuwul ci man te am naa sama doom Jibril ne alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw sama kuréelu malaaka ma bokkan nga xam ne Jibril ak malaaka yee bokk te waaye tegul ñaan tànn sa malaayka te waroo ruux gi ruux laay gi gu ñu jublu li muy li ko joxoon moo ko wole woon soxna sa lati ahsanat farja fa naa fii min ruuhinaa wa sadaqa bi kalimat rabbi moo ko yóbbu te loolee lépp nag da koo naroon a ñàkk <laughs> mooy nag li ñu naan alhamdulilah yi ñeent lillaahi ñeel na yàlla rabbil alamin kii borom bindee fi foofee nag fa la tabaski tàmbalee da ngay dégg ku naan bu bu Ismaayla ak yéen ñoom ñooñu tabaski la ñu doon ma ko du ngeen matti tabaski ndax da ngeen dul judd seeni maam yooyu bañ fañ doon dee du ngeen si si bay doon tabaski <laughs> <laughs> te te ba Ismaayla moom ba mu tëddee foofu ca Marwata ak ndeyam tànkam yam doon wéq te boobu ndeyam it ba mu ba ñuy ne foofee Ibrahima da ko faa yóbbu mu a ko sama borom dana naa la génne mu ne ko xur yu àll bi moo la ne nga wàcc ma fi bi waa dina xayra si sar indi baytikal muharram mu ne ko waaw mu ne ko loola sa borom sant nangu naa ko te boobu soxna sa ko joxoon Ibrahima donc ku mujj di fii mu te kooku yàlla baaxee na ko ja bi mu amee Ismaïla ci Ibrahima ca la kookaat am Isaaxa ca nër woon am doom Eh, waaw foofee nag fa la jaar jaare sëñ Tuubaa daa ko def nag ba ko santee Cheikh Ibra nag Cheikh Ibra la fa nekkan lépp yut ko ne ko sañ nañ ko mu ne ko boo indi la fa nekkan lépp loola fa wootaan sañ nga koo tabaski xam ne kon cosaan la yóbbu xari tabaski yi Cheikh Ibra diggante Cheikh Ibra ak Cheikh Ibra ak sëñ Tuubaa la woon waaw ca la jaare ba ñëw ba ca nun nii nag ba egsi fi ah xam nga jëf ju baax ju jàllan rek eh, moo indi lii ñeneen leneen dal seen jëfi maam ju bonoon na leen ko yóbbu dama ne mi ngi ne lëggeel Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra moom xool ko ci màggal rek 18 safar gaynde ma ko boofaloon te fañ ko tëjee nag moom fii foo dem fekk fa gaynde guy lekk lu mu fa addut parc boo dem la mu fay lekk fa addu ko te seen maama leen ko yóbbee nag ma ko doon jéem a daan ca mool wit 18 safar ji ñëw nanga mi satam dee te seen maama leen ko yóbbee nun ñi nag sun maam li mu yóbbi nag mooy ñaqal Sëñ Tuubaa ak te dama leen Sëñ noonu ñi nga xam ne sunu ñaq dong nu booleeg moom war na war na ko bàyyi muy fenn jaajëf. njar allah njëriñu ci ab jullit rawatina taalibi ak sëriñam. waaw ah, mooy nii ma la de loolu kay mooy nii ma la wax lu baax moom foo ko defee baax na waaye defee ko fu gën a baax daa gën a baax waaw. <laughs> wajaxlu yaa rabbi ahaba maskani fi àddina làkk wala ma aysani gannaaw nee na ñaan dëkk bi di bi koy gënal ci suuf si ko gënal ci suuf yi defari di indi xéewal ak yiw mu ñi ko gënal ci nit ñet gënal leen ci njabootu sëñ Touba gi fo defee lu baax baax na waaye fa gëna baax gëna baax yeen kaddu la sëriñ bi denk bokk talib yi fi jamono toll euh jëf ci ñaw ji yaatu lool leg leg nga dégg ñaawte foo xam ne da nga naan li na ko julit defé loolu mom bu ca sa yoon nekk rek ab julit du ab julit manam nuñ koy tuddee li ñi li ñi li ñuy yokkee wax ji nu mu ma maanaam boo waxee dara ni koy tasaaree ah. Ah, ab julit du tass ha ah? waaw dama ne ab jullit du tasaare ñaawteef yow boo ko déggee na la ca dégg gore mag ñi dañ daan def lu ñu dégg ci néex li ñu faxas seenum nopp ci fekk gars yi nag dañ koy déglu ba noppi dellu waxaat ko sa morom koo wax ko keneen xam nga bàkkaarub jaamur bu jale fee nga di ca tibb di yóbbu bu bu ci ñëpp tibbee day mujj deseetu dara te yéen a yéen a gàddu bàkkaar yi seen yu dem ko fu la da nga fay bàyyi lool jërëjëf xale yaaram yéen ka ma leen daan wax yëpp fi ne waxan naa ko bu yàgg te day soog a ñëw dama bi day jee watoo def luñ cib réseaux sociaux bi day def luy sos yiw net bi dugg ci jikkoy nat eh, bu google bi bu ci def luy jurug mbugal mhm. seneb bi bu ci def luy jur janaba fii ne bari na yu yàqu ci dëkk bi ci lu jur janaba ko yàq yeneen yeneen yi ci desit noonu mhm. waaw net bi dugg ci jikkoy nat bu nat bu mooy sang ci arab mhm. eh, yooyu yooyu da bari na ci yu ma waxante boobu yi ñëwagut te yooyu état nag buñ ko buñ ci yooyu état du egsi fii dama tubaab moom lub de distance tubaab moom par téeméeri mètre ñaar téeméer ba bu doon 1000 mètre fa lu bayam la yem mm-hmm. yàlla nag dalay dala mën nañ xamal nit ki lu ñenn ñi xamal leen li dale fii ba war sàq mm-hmm. ñenn ñi xamal leen la ko jiitu ñenn ñi xamal leen ci diggante bi yow ma yaroon naa bàyyi dan war na raaw xarib ci lay dox eh, li soon ci taalibe yi rek li ci li ñu ci def rek bu dee nee nag ku ne fexe man lu ko nan ci yàlla dimbali rek doole suñ tubaab seeru lu ñu ci def ko yonant la ñuy dundal di ci bégalaal sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra mm. nan ci gën a góorgóorlu ndax ñeneen a def seen jëf ci leneen te du farat mm. dañu gis ne xarit Tabaski la ñuy wax waaye dañu gis chaque année nga dugal ci giléem lu waral loolu waaw ah, giléem gi moom dama leen man eppatam ba daga na bu ma ko ci mën na boole boole ko ci yóbbu mm. ah, xam nga dañ bu dee màkk giléem ma fa gën a rëy mm-hmm. nag topp ca xar topp ca béy topp ca man nag fii xar yeeg nag yeeg béy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 la <laughs>